فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجانا باق مميت والبقاء جانا Fajaani bima bihi fajaanak, baqim mumiun wal baka ujana. Fajaani bima bihi fajaanak, baqim mumiun wal baka ujana. Qauli ya qaul yujilul marjana. jërëjëf sëñ Ousmane euh, kon bëgg nañu itam nga dikkal ñu ci euh, Cheikh Ahmadou Ndoumbe ci wàllu njàngam ak euh, ñan ñoo ko jàngal waaye itam nga dikkal ñu ci ak jaayanteem ak sëriñ bi avant muy jaayante ak ginnaaw bi mu jaayantee nga dikkal ñu ci ci ak leeral kon sëriñ Ousmane dañ la daal di jox kàddu gi Euh, jërëjëf bu fekkee Cheikh Mandoumbe ci wàllu njàngam ñuy wax ne am njàngam génnul ñett ñi muy waajuram sëriñ Seydou Mati ak waajuram sëriñ Mamour Anta Sali Mbàkke waaye ak sëriñam di magam di léppam muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñett ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo ko jàngal ndax xam nañu ne ginnaaw bi nga xamante ne nii gane na àdduna ci dëkk boobu ñu wax muy njaa ba nekk fa ab diir e, jamono bi nga xamante ni Maba Jaxu Ba ñu ngi woote wooteem bisiw boobu ci Saalum muy wooteeb jihaad te mu mel ne kilifa yu bare bare demoon nañu wuyu si ko bokkoon na ci ñu ko wuyu si woon muy waajuram Serigne Seydou Mati e, ba mu demee mu ngi kon Poroxaan ni nga xam ne sëriñ Mamour Anta Sali bokkoon na ci ñi demoon wuyu si woote boobu euh, sëriñ Seydou Mati ba mu demee euh, nekk Poroxaan fa la nekk ak ma Ahmadou moo ko jàngal alxuraan ci keppaaram la jànge ba yàlla dogal mu mokkal alxuraan ci diir bu gàtt mokkalin wu rafet tamit ci la mokkal alxuraan ginnaaw ba mu tàmbali am njàngum xam-xamam ba lenn ci téere yi nga xam ne ci la tàmbalee mu jàng ko ci moom. waaye ginnaaw bi nag waaye juróom daal di noppalu nga xam ne foofu lañ ko denc ci poroxaan yàlla dogal na ab barabam doonoon na ay jamono gisuñu ko woon waaye ci dogalub suñu boroom eh, ci lay demee ba yàlla dogal feeñal barab ba ba léegi mi ngi ci loxol njaboot gi ci Cheikh Ibrahima Khoudia mi nga xam ne mooy xalifa bi waaye ginnaaw bi nga xam ne làqu na sëñ ma numbi ab diir da caa teg laxas dem fekk ji way juróom sëriñ Maam Mor Anta Sali ba muy dem tamit booba àggale am njàngam rek moo ko yitte woon ndax booba jaayante amutoon ndax booba sëriñ bi wóoteegul jaayanteem boobu bi mu demee tamit nekk na ci jërëm sëriñ Mamoor Anta Sali fa tàmbalee am njàngam waaye mu ne ginnaaw bi mu mel ni daa féetewoo ak sëriñ bi sëriñ bi féetewoo di ko jàngal ba wax nañu ne téere yu mag yi nga xam ne moom la ñu jàng ci lu jëm ci wàllu fiq ak euh, lu ci aju ci wàllu naxwu ak mboolem xeeti xam-xam yooyu sëriñ bi moo ko jàngal ba mujj dem ba géeju lool ci mboolem xeeti xam-xam yi rawatina ci fànn yi muy lu mel ne fiq ak wàllu naxwu ba loolu taxoon na sëriñ bi doyloo woon ko lool ci wàllu googu muy wàllu xam-xam ba am na ci ay liggéey yoo xamante ni sëriñ bi daana ko ko liggéey loolu jëm ci wàllu xam-xam bari na lool sëriñ bi téere yoo xamante ni taalif na ko suñu xoolee dañu gis ne loola nday jame nga bàyyi ko ci téere yi nga xamante ne nii Murtani ci la jóge waa Mauritanie ñoo ko taalif sëriñ bi jël ko benn mu nekkoon nasaru sëriñ bi jël ko wayaat ko comme ni ñu ko gisee ci lu mel ne ne jox xabaar xaaji ni ñu ko gisee ci euh, masaalikul jinaan xaatimul tasawuf yooyu yëpp ay téere la yoo xam ne seen cosaan euh, Mauritanie waa Mauritanie ñoo ko taalifoon sëriñ bi man koo defaraat waaye li ci ëpp ci téer yi sëriñ bi daana ko ci yabal ci jamono boobu mu dem util ko ko Mauritanie waaye xam nañu ne booba Euh, naar yi ba léegi sax ñoom booba mool nóoru leen daanaka du mool gis téere ñu mool ko du yomb li ci ëpp dañ ko daan bind te seen bind yooyu tamit neexutoon a xam laaj na boroom xam-xam dëgg euh, laaj na ko xereñe moo mën a xam seenu mbind rawatina nag ba di ko toxal di ko bindaat mu mel ni loolu sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana leeral na ko nee na kaana cheikhu yursiluhu ila ardil bayaadina yastaktibuhu kutuban nee na sëriñ bi daana ko yebal murtani di ko binduloo di ko utloo ay téere waaye min gayri an yabthula lahu samanan ci lu dul mu di ko jox njëg bal yukallifuhu fa yati biha kama yuhib nee na da koy togg rek sëriñ bi dem na ko sëriñ bi bëgg mu indi la ko ko daane hada min gayri ma marratin lu dul benn yoon du ñaar yoon kon ay yoon yu bare bari day mel ne nag nit ki boo ko digalee dara ngir mu defal ko su ko defee te fekk na nga ko bëgg nga amee ko ko da nga am cawarte ci digalaat ko ko kon day mel na ko sëriñ bi daan bëgg noonu la ko daan defee ni ko sëñ Mouhamadou Amine Diop daa gën a fayaati biha kama yuhibbu mu mel ne ni ko waxee mooy bu ko sëriñ bi masaa digal ko téere sàngam laa bëgg ak téere sàngam te murtani la am mooy ut jumtukaayu boppam mooy ut kayit ji mooy ut daaj yi ñu koy bindee eh, mooy ut tamit paas bu ko yóbbu bépp coono boo xamante ne laaj na ko tamit moo koy toggal boppam ngir li sëriñ bi bëgg na ko am te booba jamono boobu sëriñ bi wóoteegul. waaye taqoogum taqoo woon ak moom ak euh, féetoogum féetoon ak moom ak doyla gu ko sëriñ bi doyla woon ci xam-xam ak jàngal gi mu ko jàngal ba wóolu ko ci xam-xam moo tax lu bare bari mu yitte jooju mu ko daan jox euh, bu ko masaa wax bu demee ba gànnaar dana fexe ba gistu ba gis téere ci ñi nga xam ne ñoo ko yore mu àbbu leen ko wala mu neexal leen ñu jox ko ko mu bindal ko boppam topp ko ba mu leer mu soo koy indil sëriñ bi léeg mu fay tamit ñu ban ko ko bindal mu mën koo indil ni sëriñ bi kon yii moo koy bind yii mën naa jox naa dañu fay ñu bindal ko ko waaye loolu lépp mooy ay taxawaay yoo xamante ne taxaw na ko ci sami ci wàllu xam kon ginnaaw bi mu géejoo ci xam liggéey na ay liggéey yu yaatu tamit ci wàllu xam-xam ci ak njabootam ndax euh, ku mel ne Serigne Cheikh Seynabou Mbacké euh, di doomi Serigne Ibra Ndoumbé nga xam ne Serigne Ibra Ndoumbé moo ak Serigne Ndoumbé suñ ma Ndoumbé ñoo bokk lépp mooy magam Serigne Cheikh Seynabou Cheikh Mandou mi moo ko taxaw ci wàllu njàngam ci wàllu xam-xamam ci wàllu alquranam ci wàllu léppam euh, ndax jamono bi nga xamante ne nii euh, Serigne Cheikh Seynabou euh, magam di sëriñ Ibrahima mi féetale na ko Cheikh Mandoumbe ba mu tolloo ci jamono yi nga xamante mooy ati jàng da ko boole ku ñu wax Serigne Dame Diop ne ko ak mokkalam alxuraan ci la sa ngërëmul yàlla nekk. waxne bobu seigne sëñ daam sonal nako lol ci digir way diir bu gàtt rek ci la mokal mokal mu rafet bi mu mu dal ko yobbu ci ku wax sëriñ ma jaxate maram sëriñ ma jaxate maram bobu ku mënoon bind la kuñ xamone ci bind la mu yabal ko fa ngir lan ngir mu meuna jang bind fexe ba loxoom rafet nekkati booba am na lum bëgg ci kanam liggey bu mu bëgg liggey liggéey sëriñ ci alquran te bëgg domam ji fetu ko fa sëriñ ma jaxate maram moom moko ko bind ba mu dem ba euh, xereñ ci lol ci walu bind ba yalla dogal mu seedeel ko lu mel noonu indiwaat ko nag ci way e, waajuram sëriñ Ahmadou Ndoumbé e, nga xam ne ginnaaw bi mu ko indi nag jamono boobu la ku ñuy wax sëñ Ali Aram Gueye e, doonoon demoon ci sëriñ Touba joxe boppam sëñ Touba boole koog Cheikh Ahmadou Ndoumbé sëñ Ali Aram Gueye nag doonoon ko bari xam-xam bi mu ñëwee yàlla dogal tamit ci moom sëñ Ali Aram Gueye sëñ ma Ndoumbé ne ko damaa bëgg sa xam-xam ak sax mën a jàngale nga wan ma ko ci sama doom ji loolu moo tax nag. Euh, mu jàngal ko ba mujj moom it mu géeju ci xam-xam ni may wax rek ne moom waaj gu waajoon ngir bëgg liggéeyal Serigne tubaa ci wàllu xam-xam bëgg a liggéeyal Serigne Touba ci alquran moo taxoon mu formé ku mel ne Serigne Cheikh Seynabou ak ñeneen ak ku mel ne Serigne Mbacké Ramata ñooñu Serigne Cheikh Seynabou wax nañ ne bind na Serigne Touba ci loxoom lu tolloog ñeen fukki kaamil ak lu teg te loolu lépp tamit taxawaayu Serigne Mandoumbe ak liggéeyam la noonu ñu ko waxee ci Serigne Cheikh Seynabou noonu lañ mën a waxee ci ak ñeneen ñoo xamante ni ak njabootu boppam mu taxawu ci wàllu xam-xam kon loolu mooy ci wàllu xam-xamam loolu lañ ci mën a tënk mooy sëriñ euh, waajuram moo ko jàngal alxuraan jàngal ko dara ci xam-xam sëñ ma Mor Anta Sali jàngal na ko waaye nag li ëpp ci am njàngam sëriñ Tuubaa moo ko ko jàngal ba mu dem ba géeju ci xam-xam su fekkee ne lu jëm ci wàllu euh, jaayante bi xëy na loolu dañu ci indi ñëwaat ci buñ ci ñëwaatee ci euh, ginnaaw bu sëñ Murtala buñ ci ñëwaatee incha allah dañeen wax lu jëm ci njëkk muy jaayanteeg sëriñ bi ni mu doon doxee ak ginnaaw bi mu jaayanteeg sëriñ tey nag ñu dikkaat ngir bëgg a leeral euh, Cheikh Ahmadou Ndoumbe euh, bi muy jaayanteeg sëriñ bi ak taxawaay yi nga xam ne moom la amoon euh, ak ginnaaw jaayante gi sëriñ Ousmane kon ñu jox la kàddu gi. jërëjëf sëriñ Mourtada dañu wax ne Cheikh Ahmadou Ndoumbe mi ngi jaayanteeg sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor ci 1883 mooy bi nga xam ne sëriñ bi woote ne woote bu siiw boobu. ci la Cheikh Ahmadou Mbe jaayanteeg sëriñ bi waaye dañu wax ne lu jiitu loolu doxinu jaayante la doon dox bu ñu waxee xidma ak tarbiya ni ko sëriñ bi daan defee ginnaaw bi mu wootee Cheikh Ahmadou Mbe lu jiitu jaayante gi noonu la doon doxeeg sëriñ bi loola dinañu ci doy sëkk Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana ci téere bu ñu wax nubsatun taarixiya wa nafsatun ilhamiya mi ngi ciy wax ne faalam ann rajula ibnu ammi cheyqi wa qarinu boobu sëñ bi numéro yi mun a xamal ne kii ma lay waxal doomi bàyyi tax da ci sëriñ bi waaye tamit ku taqoog moom la qabla ilmi ahadin bihi njëkk kenn di xam sëriñ bi bu njëkk kenn di xam sëriñ bi nag xay na jubluwaay ji njëkk kenn di ko xam li tuddee xamuk baatin mu ne baa nafsahu lillahi wa tajarrada li xidmati cheyqi faridan jaay na boppam yàlla futti ko ci liggéeyal sëriñ bi te wéet ca lool wa garraba wa sharraqa nee na dem na sow dem na penku ngir sëriñ bi wa yaxdumu laylahu wa nahaarahu wa yabthulu qalilahu wa kathirahu di ko liggéeyal guddi di ko liggéeyal bëccëg di ko jox la mu am lu néew ak lu bari lépp mu di ko jox sëriñ bi kon noonu laata sëriñ bi di woote ak jaayante moom nii la nekk woon ak sëriñ bi bi nga xam ne ni tamit sëriñ bi jaay woote na jaayante bi ci Mbàkke Kajoor mu daal di koy wuyu si continuer doxin wi nga xamante mom la doon doxé ci ben muy wenn xir rek la ma sa am mom doxin wowo te moy sax ci liggéeyal sëriñ bi muy guddi ak muy suba ak kon bohole xolé ci walu tarbiyam kon nima ko waxee tambali ni njëkk jaayante gi waye biñ jaayante ba nepp tamit dafa wëyal ak tarbiyam euh, ndax boo xoolee euh, sëñ Moussa Ka mi ngi koy bi sëriñ Abdourahman Lo di wax tarbiyek Cheikh Cheikh Mandumbe ak sëriñ daam ak Cheikh Ibrahim di wax ne foofee fa Mbàkke Kajoor lañ tarbiya abada mook làmp ak saa nijaay daam ndumbe xabbaana guddeeg bëccëg lañ daan yalwaan booba kenn du nelaw jàng ak liggéey lañ daan booleeg yalwaana kon dafa mel ne waxtu jamono bi ñu tollee ci jàng lañ ko booleeg liggéey boole koog yalwaan boole koog tërbiya sëriñ bi ci jamono boobu nga xam ne ci la nekk Mbàkke Kajoor moom la sëñ Musaa di Musaa di jóg ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekk na àllarbaak dibéer lañu xewal mu daldi buur sóobu ci yoonu aljana jébbal sëriñ bi ab nosam def gumba jox ko ab tumam fu mu toll sakkuy ngërëmam laajal sëriñ daam fekk na dal ne keroog ba tey mus taay mus la yàgg fib jataay mus la tekki laxasaay mus la wax ne sonn naa keroog ba tey mooy bi nga xam ne ñëw na ci wàcc na dénde yi mooy keroog ba mu takkee laxasaayam ci mbàkke kajoor ba niñ ko ko tekkee ginnaaw bi mu wàccee ciy dénde yi nee na keroog ba tey mos la taay mos la yàgg fi jataay mos la tekki la xasaaya mos la tekk wax ne sonn naa mos la xëy dellu ginnaaw te luñ ko sant mu ne waaw te du ko wan kanam gu ñaaw mos wax ne jàmp na jaay na sëriñ bi ak rawam te mos la juyoog ndigalam ba xëy na jeexal ak dundam mbàkki ngëmam ga yàgg na kon nii mooy ni nga xam ne noonu la ànd woon ak sëriñ Touba ginnaaw bi mu jaayante ak moom ci Mbàkke Kajoor mooy di ko liggéeyal takkoo ak moom takkoo gu mu sëkk fu sëriñ bi nekk mu nekk fa ak moom mësu tàqaliko ak moom ba ni sëriñ bi ñëwee Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawol ba ni sëñ bi sanc Daaru Salaam lépp mu ànd ak moom ba ni bi sanc Touba mu ànd moom ba ñeenti daara yooyu nga xam ne moom la sëñ Touba defoon muy daaree tarbiya ci Touba tàmbalee ko foofu euh, mu composé ci fukki ak juróom-benn sëñ Madou bokkoon na ci ci biir waaye ñu bari dañuy wax ne foofu la sëriñ bi def tàmbali tarbiya gi waaye tarbiya gi ci Mbàkke Kajoor la tàmbalee moom fa lañ tàmbalee bañ ñëwee Touba tamit ñu wéyal ko ci noonu la nekkee ba nga xamante ne làq na ngërëmul sëriñ bi muy ngërëm lu wóor waaye teewul nag mu wéyal ab liggéeyam jàpp ne moom ba léegi ma ngi ca daara ja lépp lu mu am mu jël jot ko sëriñ bi jox ko sëriñ bi jébbal ko sëriñ bi kon noonu daal mooy li nga xamante ne sëñ Mourtada mooy wàllu jaayanteem njëkk jaayanteem ak jamono bi nga xamante ne jaayante na ba tawin ci doxin wii mooy wi nga xamante ni moom la doon dox. Ah, jërëjëf Euh, am na solo mooy firndeel li sëñ Moussa Ka di wax rek ne ñoo bokk ndey te bokki baay ci wàllu maam ak wàllu baay seex moo du jël mbokk gajaay jënne ngërëm kon wàcc na euh, sëñ Ousmane dañoo bëgg ñu nga ñëw rek ci lu gën a gaaw euh, ngir njëkkante ak waxtu wi ku ne xam ne ne ginnaaw bi mu jaayante taxawaay yi mu amoon ci digganteem ak sëriñ bi waaye ci digganteem ak taxawal liggéeyub sëriñ bi ci euh, anam gum mën a doon waaye itam dañoo bëggoon nga ñëw ci euh, ginnaaw bi fi sëriñ bi jógee dem Murtani Seex euh, Ahmadou Ndoumbe yan taxawaay moom la amoon. jërëjëf mu mel ne dañu njëkkee rek ci bi nga xam ne sëriñ bi jóge na fi dem ci géej gi ndax wax na ne ginnaaw waaw bi nga xam ne sëriñ bi jóge na fi dem ci tukkib géeju gi sëriñ bi du am ci taxawaay bu ràññikoo am ci taxawaay bu rafet ci yoon wi am taxawaay bu rafet ci kanamu maam Thierno Ibra Faty bi nga xam ne moom la sëriñ bi dénkoon njaboot gi loola tamit buñ delloo ci euh, Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana mi nga xam ne moom lañ tuddoon mi ngi koy leeral di wax ne falama gaaba cheikhu algaybata albahriya wa xallafa axaahu cheikh ibrahima faati kaana haada almuridu ridda an wa ayu riddi in فكان لا يدخر عن عيال الشيء شيئا رعيا لعهد الشيخ حين تحير كثير من الناس وانحرف البعض سي محمد امين جو دا فا بيغا خامني سيرين بي ديمنا سي توكي بي بايي شيخ ابراهيم فاتي نجابور جي نينا طالبيم بو ماك بي دي شيخ احمد نومبي تخاونا سي كانمو شيخ ابراهيم فاتي جابالو كو سي جابالو غو وور نينا داول دنتال دار ak njabootam dawul dencal dara boppam lépp lu masa am dana ko jox sa Ibra Faty mu jox ko njabootuk Serigne Touba muy wax na loolu nag ngir sàmm kóllëre gi nga xam ne jaayante woon na ko sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor moom lay sàmmonte ba tax na musta deltu ginnaaw ci loolu ci loolu ci la nekk ci loolu sax moo taxoon bi sëriñ bi demee ba ci déwén sa mu daal di sanc Kër Magay Ndaw ci 1896 ndax 1895 ci la sëriñ bi dem 1896 mu daal di dem sanc Kër Magay Ndaw lu lépp ngir bëgg a yaatal ab liggéeyam mën a yar njaboot gi mën leen a jàngal waaye mën leen a yar ci njàngaleem sëriñ bi waaye mën a tax tamit liggéeyam gën a mën a yaatu ba li nga xam ne sëriñ bi bàyyee na ko ko te mooy dundu njaboot gi mooy mooy dundu ñi nga xam ne dañuy jàng loolu mu mën ci am ay taxawaay waaye nag am na ci taxawaay yu ràññeeku am ci tamit taxawaay yoo xamante ni yu yu yaatu la loolu tamit ni ko nga xam ne Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana leer la muy taxawaay bi mel noonu euh, sëriñ Mouhamadul Bachir ba tey leeral na ko ci euh, Minanul Baaxil Qadim loolu demee ci mënoon baax la xam gis mu ko ci mu ko ci mu ko ci junj di wax ne euh, bi wax ba mu yàgg mu ne wasaa fi dalika ibnu ammihi almuridu alkabir ahmadu lumbe wa xath almuridina ala muwasalati alxidmati nee na doxin woowu jëf na ci jëf ju rëy rëy di taalibeem bu mag ba muy Cheikh Ahmadou Numbe di ñaax taalibe ci ñu wëyal liggéey bi di yeesal seen pas-pas daane wa taqaddama huwa waaye moom loolu muy diglee di ci ñaaxee di ci soññi moo ci jiitu mu daal ne fa jasaahu laahu xayran wa shakara mashaaw yàlla nañu ko yàlla fayal te eh, sant jëfam jooju am na ci yeneen barab tamit yoo xamante ba tey see ma ngi ko fay junj waaye nag xëy na ci ngir xataay waxtu wi eh, loolu rek lañ ci indi loolu tamit moom la sëriñ Musaa Ka di junj dañu wax ne keroog ba bàmba ne meles tàbbi ci géej ba nu mes gëm yi yoo xam yaakaar yi tas moo doon tool ba màgg na leen maam Thierno mat na yeewu leen bu leen nelaw liggéey leen te jox ko Bàmba tukki na kon noonu ci la daan soññee mooy li mu nekk mooy lépp lu mu liggéey yónnee maam Thierno ngir ne moo fi Serigne Touba moom la fi bàyyi ngir mu jox ko njabootu Serigne Touba gi noonu tamit ci la daan soññee mboolem ñi mu bokk doon Serigne Touba mboolem mag ñi ci taxawaay boobu tamit ci la leen doon soññu muy taxawaay bu rafet boo xamante ne nii yemanu ko woon ci boppam ba nga xam ne ku ci amoonuk jaaxle wala nga am ngëlëmte dana fexe ba sa jaaxle deñ ku ci am ngëlëmte mu fexe ba gindi la ku ci yoon wi réer mu fex ba tegaat la ci yoon wi moom sëñ Moussa Ka mi koy junj euh, ci taxawaay boo xamante ne bu mel bu mel noonu la la la la la Seex Mandumbe taxaw ci kanamu Seex euh, Maam Cerno Ibra waaye ci kanamu mag ñi euh, taxawaay bu mel noonu mooy bi nga xamante moom la ci moom la ci taxaw moom ñu jeexale naan ku yoon wi réer baa nga kale mun naa la yoon wi mun naa la yoon wi gàtt na kon noonu mooy ab taxawaayam ci bi nga xam ne sëriñ bi dem na ci géej gi ma juróom-ñaar at yooyu yëpp ma ngi ko def ci kër ma ngay ndaw bi sëriñ bi ñibbisee tamit taxawaay bu mel noonu tamit la amaat mooy mel na kuy soog a tàmbaliwaat laxasaayuwaat gën a jaajuwaat ci liggéeyal sëriñ bi moom tamit sëñ Mouhamadou Amin Diop Dagana wax na ko nee na falama xaaba falama qadima cheikhu min al bahri taxazama xizaama al mubtadi as-saadiq al xariis ala nayli muraadihi nee na bi sëriñ bi dellu daa laxaswaat laxaswaayuwaat mel ne taaliba buy soog a tàmbali ko kër ci am na mu bëgg mel ne koo xam ne li muy wut ci dara te boobu fekk ne sëriñ bi duyal ko ba mu feesal ba ñu ko sëriñ bi boole woon ba mu dem ci géej gi sax ñooñu duyal na leen bañ feesal waaye mu mel ne bëggam ci sëriñ bi ak xëram ci sëriñ bi moo ko yóbbu mu mel ne koo xamante ne li mu wut amagu ci dara jaajuwaat laxasaayuwaat beneen laxasaayaat gën a dëgg dara laxasaay gi soo gisee ñu naan ko borom ñeenti laxasaay mooy lu mel noonu mooy bam ko takkee ci Mbàkke Kajoor ba sëriñ bi demee ci géej gi da ko gën a dëgëralaat bi sëriñ bi ñibbisee mu takkaat ko mel ne kuy soog a tàmbaliwaat bi nga xamante sëriñ bi wàcce na tamit digganteem ak Cheikh Mouhamadul Moustapha dañu teewul taxawaay bu mel noonu tamit la ci amaat kon noonu la taxawee bi nga xam ne sëriñ bi ñoom ci la noonu sax ci la sanc xabaan ci 1903 eh, jàpp 1904 ci la daal di sanc xabaan ngir lépp rek bëgg a yaatal ab liggéeyam mooy bi nga xam ne sëriñ bi ñëw na wax nañu ne ba mu sancee xabaan eh, fa jaraloon na ko mu lu tolloog fanweeri gileem ak yu teg te loolu lépp jubluwaay mooy sëf hadiya yi nga xam ne moom lay jëme ci sëriñ bi ak fu sëriñ bi mën a nekk mooy bi mu nekkee gànnaar bi mu nekkee ci yéen bi mu nekkee njaarim lépp loo xamante ni ñor na ci mbay mi ak nu mu mën a toll ak addiya ju fa daje yu sëf ko ci giléem mi doon ko wér sëriñ tuba kon noonu mooy taxawaayam bi nga xamante ni sëriñ bi ñibbisi na ci géej gi bi sëriñ bi demee gànnaar tamit taxawaay boobu rek la ci am moom la sëriñ Mouhamadul Amin Diop da nga wax ne bi sëriñ bi falama gaaba cheikhu ila ardil bayaadin ittaxasa tariqa maslakan laa yakaadu yufaariquhu bi nafsihi wa rusulihi wa maalihi nee na bi sëriñ bi demee gànnaar daa jël yoonu gànnaar def ko muy aw yoonam du faxtuwu wu ne daawul tàqale kook yoon wi benn moom ci boppam muy dem wala alalam di dem wala nga gis ay ndawam di dem waaye waxtu wu ci nekk daal naar yoonu gànnaar ndawam a nga ci wala alalam ma nga ci wala jëmmi boppam ma nga ci dem di fekk sëriñ bi kon noonu mooy ni nga xamante ni moom la taxawee ci digganteem ak sëriñ bi bi nga xamante ne sëriñ bi dem na gànnaar ba sëriñ bi ñibbisee ci yéen ba nim ñibbisee njaareem ba ñim ñëwee njaareem euh, jox ko ndigal ne ko yëwal yaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall ngeen féete ma penku ci la sëriñ ma du ñëw daa ji sanc xujal loola mi ngi doon ci 1914 ndax 1904 xabaan def na fukki at 1904 la ko sanc 1903 1904 fa la nekk ba 1914 sëñ bi woo ko bi mu ñëwee njaareem ci la ko sëñ bi woolu ne ko nag ci 1914 la ko woolu ne ko féete ma ci sama wetu euh, sama sama sama penku ci sama kanam ci sama wetu lay joor Cheikh Ibra na ma féete ci sama wetu càmmoñ ci la xool mboolem dëkk yi nga xam ne Cheikh Amadou sancaan na ko ci ginnaaw bi yëpp ci wetu lay joor la Cheikh Ibra yi mu sancaan yëpp tamit dafay féete ci wetu càmmoñ nga xam ne ci la sëñ Modou sanc xujal 1914 benn at la fa def mu mel ne xat na ci moom ci yéenam gi mu bëgg a liggéey ci sëriñ bi mu daal di jàll Mbampana sanc ko ci 1915 def na fa juróom-ñaari at jàll sam cent 1923 mu sanc ko ginnaaw ñaari at nag mu daal dem sanc Dendey ci vingt 1925 def ko mu nekk ay tool yoo xamante ni ngir lépp tamit liggéeyal sëriñ bi mbooleem sanc yooyu yëpp daal jubluwaayam leen rek la mooy liggéeyal sëriñ bi mooy yar njaboot gi mooy jàngal njaboot gi ndax fu ma masaa nekk dana fa def daaray alquran dana fa def tamit jàkka loolu xëy na bu ñëwee ci wàllu njàngum wàllu diggante jaamu yàlla am dana ci gën a leer kon daal lii mooy li nga xam ne taxawaayam la ci digganteem ak sëriñ bi bi nga xamante ne sëriñ bi dem na ci géej gi ak bi sëriñ bi ñibbisee bi sëriñ bi demee gànnaar bi mu nekkee ci yéen bi mu nekkee njaareem benn rek benn xel rek la am mooy waxtu ci nekk liggéeyal sëriñ bi yot sëriñ bi jàpp nañ ne daal amul lu ci moom moo tax sëñ eh, Mouhamadou Ami Diop mi ngi wax ne eh, Cheikh Ahmadou de bi nga xam ne yàlla ubbi na ko jox ko mbooloo jox ko ñu ko topp dafa melne da gis ne li xewal la gu ko yàlla defal gu ko bi defal mu gis ne kon sante warna mom lay wax ne falamma fataha allah alayhi wa sakhara lahu atbaan neena biko yàlla ubbe tagatal ko ñuko top ay talibe fu nek nit dafa ñëw diko jox bopam lu nek nit ko indil neena zada fi himmatihi lol da dolli pestefam ak yitem ci serign bi wa raa anna shukran ni'mati wajibun mu gis ne sante kat xewal lu war la fan huwa wa في خدمه xidmati janaabi cheikhi nee na mu nuuru moom ak mboolem ñi ko topp ci liggéeyal sëriñ bi bi amwaalihim wa anfusihim ci seen alal waaye ci seen bopp min xayri an yastasira bi min maali nga xam ne dara ci alalam jàpp na ne ko lépp sëriñ Tuubaa moo ko kon noonu mooy ni nga xam ne mooy ab taxawaayam ci sëriñ bi kon xëy na sëñ ñu yam foofu ba yeneen laaj yi incha allah ñu mën wéyal liggéey bi Ousmane ci kàddu yi am solo ci taxawaay yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Ndoumbe amoon na ko ci euh, bi sëriñ bi demee ci géej gi ak ginnaaw bi mu ñibbisee te xel di dem ci ginnaaw bi mu ñibbisee mooy bi mu demee Mauritanie waaye nga junj lu am solo mu mel ne Cheikh Ahmadou Ndoumbe euh, ak dogoom avant muy jaayante ak sëriñ bi euh, la ko amaloon waaye ba bi mu jaayanteeg sëriñ bi itam daf ko gën a dogu waaye bi sëriñ bi demee ci géej gi mu gën a waaye ba bi sëriñ bi ñibbisee dem Mauritanie itam dogu googu ko daal dañuy wax ne Cheikh Ahmadou Ndoumbe ak dogu ci la nekk ba euh, wuy ji boroomam euh, te loolu yëmalewu ko sax ci boppam ndax euh, loolu nga doon junj léegi te sëñ Moussa wax ko wane ne murit bu dem moo lay jëli loolu rek day wane ne kon Cheikh Ahmadou Ndoumbe yëmutoon ci dogug boppam waaye dogug gi da ko yóbbu ci képp koo xam ne rek gis na ne yaa ngi yokkat wala yaa ngi am jafe-jafe mu dem taxawu la defal la boo demee mu jëli la ngir lépp rek mooy taxawu sëriñ bi euh, biir ak biti kon loolu am na solo kon foofu dañ fiy dugalaale rek euh, mu mel ni kon li nga xaw a juñu nii ci digganteem ak sëriñ bi ak taxawaay yi amoon kon yan taxawaay itam la amoon ci digganteem ak ñi nekkaloon ànd ak sëriñ bi Eh, jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mourtada kon noonu ma ko waxee rek mooy muy taxawaay boo xam ni taxawaay bu yaatu la ci digganteem ak ñi woon toppaloon sëñ bi ñu àndaloon ci sëriñ bi noonu ko waxee ci maam Cheikh eh, Cheikh Ibra Faati waaye noonu la ko amee woon ci mboolem ñi nga xam ne moom la ñoo toppoon sëriñ bi moom dafa amoon yéene jaruñu ci sëriñ bi te ñëpp jariñu ci sëriñ bi moo tax murid bu daw moo lay jëli def ndimbalal gaa yi tële ku yoon wi réer baa nga tale baa nga ku baa nga kale mu naa la yoon wi gàtt na murit bu daw moo lay jëli def ndimbalal gaa yi tële ku yoon wi réer baa nga kale mun naa la yoon wi gàtt na loolu lépp tamit mooy jubluwaay fexe ba xam ne sëriñ bi njariñul kese la te ni ci bëgg jariñoo noonu la bëgg tamit mboolem ñëpp jariñu ci moo tax ñëpp tamit mu taxawu leen du bëgg kenn koo xamante ni dana dem euh, kon bu dee ci wàllu taxawaayam ci sëriñ bi wàllu taxawaayam ci ñi liggéeyu sëriñ bi ci wàllu taxawaayam ci njaboot gi loolu yaatu na lool danañ ci tudd rek muy taxawaayam ci jumaay njaareem taxawaayam ci jumaay njaareem taxawaay bu ràññiku la dafa mel ne sax bokkoon na ci ñi jiite woon liggéey bi moom ak sëñ Issa Dieng ak sëñ Balla Faali moo tax sëñ Moussa Ka koy leeral ci marché bi defal sëñ Balla mi ngi wax ne sëriñ Issa ko jëwrinu moo di Saadix wa Cheikhu Madu Ndumbe dolli ca ba dolli ca Balla Faali kon ñett ñi ñooy ñu ko jiitoon sëriñ Issa moom moo jiitoon liggéey bi lépp Cheikh Ahmadou mboolem ñi nga xam dañuy sant Mbàkke lépp lu leen joxe ci moom la jaar Cheikh Balla Faali mboolem taalibe yi tamit ñi ci des lépp lu leen joxe ci loxoom la daan jaar ci loolu sëriñ Madou taxoon na mu sasool boppam euh, téeméeri junni ci jamono booba jumaa ja ngir bañuy sasoo téeméeri junni la sasoo te mus la yàq lam fasoo ku weddi laajal sëriñ sa xanaa jamono bi nga xam ne tamit tubaab yi ñëw nañ njaareem di laajte plan ba fexe ba jël ko yóbbu ko te seen jubluwaay mooy gàllankoor liggéey bi sëñ Balla Faly ak Cheikh Ahmadou Ndoumbé ñoo defaat seeni pexe defaat seen i lijjanti dem ba te loxol tubaab bi nanguwaat plan bi indiwaat jébbal ko Serigne tubaa ngir liggéey bi mën a wéy loolu tamit taxawaay la loolu tamit sëñ Moussa Ka leeral na ko nee na keroog ba gouvernement ba ñëwee fa Jurbel di laajte plan ba dal di koy yóbbaale Serigne Balla ne Cheikh Ahmadou Ndoumbé dem. ba àgg ndar ba àgg ndakaaru baa ndar baanu laale keroog la ñu dem giseek boroom ndar mu delloo leen plan ba ñu ñëw déyaale kon ci loolu ci leen dem indiwaat plan ba ba liggéey bi mën a wéy ngir bëgg bëggutoon liggéeyu sëriñ bi dara lu koy gàllankoor wala mu taxaw kon jumaay njeereem taxawaay bi mel noonu la ci am ba ni liggéey bi àggee sëriñ bi daana ko sant tamit ay liggéey yu baree baree bari bokk na ci kërub daarul mën naan gi bari na lool lu ko ko sant mu defar ko am ci waxtu woo xamanteni ba mu uh, jommee muy lak mom serigne joxon nako ko ndigal mu yeesalaat ko serigne musa Ka mi ngoy jundju Cheikh Modou Ndoumbé Mbacké def na fay keur ci ndigal Cheikh Bamba gayam yay sikkar loolu kon ay taxaway la ci dekk bi tamit di Touba muy dekk bu serigne bi fonkon mel nañu wax ne tabax biñ ci njëkk defal serigne bi ci liñu ñu gëstu ñun mom moko defal serigne Touba moy jamono bi serigne bi nekk ñaar nako dama bëgg nga dem Touba nga defal ma fa keuruk téré muy kër goo xam ne ndox du ko mënal dara safara du ko mënal dara max du ko mënal dara mu xam ne loolu junju la ci sëriñ bi na ciment rek bâtiment ciment rek koy man ci la ko tabaxal muy bâtiment boobu nga xam ne mi ngi ci biir Daaru Xuddus ba léegi mi ngi fi te mooy fi nga xam ne ci leen def école euh, Daaru Xuddus bi ci biir bayti loolu tamit sëriñ Modou moo ko fa defaloon euh, sàq moomu tamit mu ci doon def ab dund lépp lu liggéey tamit def ko foofa euh, bara boobu tamit mu def ko muy kërug téere ci néegulu sëriñ Touba. ak yu baree bare yoo xam ne sëriñ bi daana ko ko taxawloo bare na lool tamit ñoo xam ne bi ñu jébbaloo ci sëriñ bi sëriñ bi da boole ak ñoom mu leen taxawu sëriñ bi ba mu géej gi boole na ko ku ñu wax sëriñ Daawudu Jóob jat ni boole woon na ko ku sëriñ Mouhamadou Jigal am na ñeneen ñu ko boole ba nga xam ne ñu ci bari sax laata bi di ñëw moo leen tarbiya ba wàcc leen ba sëriñ bi ñëwee tamit dafa wëyal ndigal loo dafa dafa wëyal loola loola tamit kon mel na ne sëriñ bi doyloo woon na ko ci lu baree bari ci taalibe ñu baree baree bari Eh, xëy na liste bu yaatu la boo xam ne ñu jébbaloon ci sëriñ bi wala ñëw jox seen bopp sëriñ bi sëriñ bi boolewaat leen ak Cheikh Manoumbe sëriñ Modou defar leen bala nga xam ne moom la bëggoon ci sëriñ bi ñu defal mu defal ko sëriñ bi ci ñooñu nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi boole ñoom kon loolu lépp tamit ay taxawaay la waaye eh, sëñ bi taxawaay boobu mu am moom la amoon tamit ci jumaay Touba taxawaay bi mu noonu ndax xam nañ ne bu ñu waxee jumaay Touba dañu mën a wax ne taxawaayam ci Cheikh Mouhamadul Moustapha taxawaayam ci jumaay Touba bi nga xam ne yàlla dogal na sëñ ku tedd ki xaadimu rasul ñëw ci dëkkam bi ci Touba mu doon ci jamono ju doy waar ñu bari jaaxle ci jamono booba rek ci la jaayanteeg Seex Muhammadul Moustapha ci sansa ci lu dul muy am lu xalaat loolu tamit sëñ Muhammadul Amin Diop Dagana leeral na ko di wax ne annahu lamma naama cheikhu wa qaamat qiyaamatu ahli dunya falan yabqa illa illa mutaraddidun fi amrihi aw shaakun nee na bi nga xam ne sëriñ bi def na li mu def tànn dëkkaale ak boroomam waa àdduna jaaxle lool falan yabqa illa mutaraddidun fi amrihi mu ne amul lu muy ñi nga xam ne ñu ngi déng déng jaaxle lool aw shaakunu wala ki nga xam ne sax léegi day sikki sàkk wa daaw fa yaqiinul muuqinina jàmbaar yi sax dem nañ ba mel ne fi mu toll nii am nañu jaaxle nee na booba lu xew ci sëñ Modou talaqal mihnata bi qalbin jariin nee na li xew muy lu rëy rëy waaye nag e, jàkkaarloo nag loolu nangu na ko ci xol bu ñeme xam ne lii ke dogalub yàlla rek moo ñëw waaye du wàññi dara ca na mu jàppe woon sëriñ bi wa baayaxa al xalifata awala wahlatin nee na mu baay mu jaayanteeg Cheikh Mouhamadou Moustapha ci saasa waaye mu baayaxatal mubtadi allasi lam yaxdum xattu mu ba jaayante kuy soog a tàmbali koo xam daa mel ni mësta liggéey falam yara li nafsihi li ma taqaddama martabatan ma nee na li ñu jiitu ci ay liggéey ak taxawaay ak li ko sëriñ bi wax ba ne ahmadu murid saadix la li ko sëriñ bi wax ne li ma ahmadu numbe jox kenn joxuma ko li ko sëriñ bi faggul ak li ko sëriñ bi wax ak ngëneel yi mu am nee na lépp gisatu ci dara bal xalafa bi rabbihi ala annahu yaxdimu alxalifata bi adaafi ma kaan yaxdimu waalida dafa waat ci boroomam ne danaa la liggéeyal yow Cheikh Mouhamadul Moustapha lu fulla ni la ma liggéeyaloon sa waajur wa waaye nag Cheikh sëñ sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana mi fekkoon nee na fa barra fi xel fi lam giñoon def na ko falaa yubqi shay'an nee na du desal dara min fiddatihi wa zarcihi bal yabsulul kulla lil xalifati nee na lu ñëw muy mbayam muy addiyo ju ñëw muy lu am lépp da koy jox Cheikh Mouhamadul Moustapha mu def ko ci liggéeyub jumaa ji kon ku amoon taxawaay la ci Cheikh Mouhamadul Moustapha taxawaay boobu nag mooy taxawaayu liggéeyub jumaa ji ba wax nañ ne bi ñu liggéey jumaa ji eh, bokk na ci taxawaayam mooy seetarne yi nga xam ne ci lañ doon def dox tamit loola tamit mooy eh, taxawaay boo xamante ni moo ko utoon muy taxawaay boo xamante ni bari nañu ko seede eh, moom la sëñ Mor Kayre di wax ne sëñ Modou Mbee ngi teew di bañ ko ragal musla janok sheikh mu wax ko mbir te matul gemna magam teew gi ak ginnaawam yam fasna lu sheikh digle won dakoy rafetal lo lépp day juñu taxwayam ci liggéeyu jumaaji ji musa ki di wax ne jébbal na mbayima mustafa mo ngi wax ne walam yafal bi man jafa moo sopp bàyyi Moustapha ma annabi Shafii ma nga njëkk sax dina jawriñu saadix ba ca saam wa huwa saaxibul maqaam deefu ko jot yowmal qiyaam ahmadu numbel baariq jébbal na mbàyyi ma Moustapha walam yafal bi man jafa moo sopp bàyyi Moustapha ma an nabi Shafi maanaam mbàyyi lépp lu mbàyyi rek jébbal na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha mu def ko ci jumaa fi ñu jeexale rek mooy ba tey ci taxawaayam ci jumaa rek ba nga xam ne maanaam adduna seede nañ ko rek sëñ Mouhamadul Amin Diop Dagana da ci nettali ne bi nga xamante ni yàlla dogal na Cheikh Mouhamadul Moustapha di teg xeer wi ba mbooloo mi daje fi ñëpp am mbégte nee na ñuy way way olof di way ñiy tagg di tagg mbégte dal daj ñëpp nee ci noonu rek is aqbala cheikhu ahmadu ndumbe fa aqbalu alayhi nee na sëñ madu mu mel na ñu gis ko ne la mu ñëw fa aqbalu alayhi mbooloo mépp wëlbatu ko jàkkaarloog moom yuhanni'uunahu bi xusni qiyaamihi maa cheikhi wa baadahu maa alxalifa nee na ñoom ñëpp di ko ndokkeel ci taxawaayam bu rafet ci sëriñ tubaa waaye taxawaayam rafet ci ginnaaw sëriñ tubaa ci xalifaam bi ak njabootu sëriñ bi nee na bi waxee ba wax ci gudd فلما أطالوا في ذلك نين أجابهم مدلل تنط بحمد الله على توفيقه هذا القيام ثم قال إني أحمد الله عليكم وعلى هذه الجماعة من من دي ماغي سنت يالا سي يين ماغي سنت يالا سي لين دي يين تي تخواي بي نين لاني ارى ان هذه الخدمه كانت علي وحدي ndax man damaa gis ne liggéeyub Sëriñ Tuubaa bii ñuy def ak bépp liggéeyub Sëriñ Tuubaa man rek la war kon fama ata ahadun illa aanani amul kenn ku ñëw lu muy man damaa jàpp ne damaa dimbale damaa jàppale ci liggéey waaye man jàpp naa luy liggéeyub Sëriñ Tuubaa man la war foofu nag day mel ni taalibe yëpp fa lañ nekk wala fa lañ fa lañ war a nekk mooy jàpp na ne luy liggéeyub kenn ku ci nekk jàpp ne liggéey bi yow la war su defaroo yow la defar yow la defarul su yàqoo yow la yàqul loolu bu ñu ko defee muy taxawaay yoo xam ni sëñ Madou amoon na ko waaye mag ñëpp ñi nga xam ne topp nañ sëriñ bi taxawaay bu mel noonu la ñu amoon moo tax ñu jagal defal ni ko sëriñ bi bëgg woon ñoom ñu mën a doxee noonu loolu nag day mel ne ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel ci taxawaay yu mel noonu ñu xam ne mag ñi ñoom fii la ñu nekkoon ndax lu ñuy wax ci Cheikh Mandoumbe nañu xam ne wax nañ ko ci mbooleem njaboot gi nga xam ni sëñ Tuubaa leen defar ndax amul lu nekk ci ñoom lu sëñ Tuubaa defut loo dégg ñu wax ko ci ñoom lu mu rëy rëy rek xamal ne def defu Serigne Touba la ñuy leeral waaye jublu ñoo leeral sax jëmm ja waaye jëmmi Serigne Touba rek moo jubluwaay bi xam ne lu ñu wax sëñ ma numbee moom lañu wax ci sa Ibra Fall moom la ñu wax ci Cheikh Ibra Faati moom wax ci kenn ku ci nekk ci mag ñi ndax lu nekk ci moom Sëñ Tuubaa ku ci def waaw kay jërëjëf sëñ Ousmane xam naa waxtu wi xaw nañoo xoj ba liñ bëggoon sax ci commentaire yi du mën a jàll waaye ñu yemale foofu partie ñaareel bi xam naa incha allah dañ leen dig daje ba ñëwaat ci partie ñetteel bi waaye wax ji am na solo macha allah euh, jërëjëf sëñ Ousmane ci kàddu yi.